salaamaaleykum mbokki Sénégal salaamaaleykum yéen ñi nga xam ni yéen safo safoo Hann TV tey jii yegg si naa fiir Géejawaay far fi seetaan si ndaanaan bu mag ah sama ndaanaan yegg si na euh, muy ki nga xam ni moom mooy Lirou Diane Lirou yegg si na sama ndaanaan bi nga xam ni tey Géejawaay moom laa dalal euh, champion ñu ngi lay nuyu. waaw sama gars yi maa leen ziar maa ngi jéggul nag su voix bi dana neexul nag tey rek waa Hann TV gërëm naa leen sant naa maa leen ziar bu wér a wér ci loolu leen ne du nuyu waa Géejawaay gépp ngeen fekk ma sama gox tey sama milieu fii ngeen toog nii ah monsieur le maire maire de la ville muy Aliou Sall ñu ngi koy gërëm di ko sant moo fi def lii te lii dafay baax Géejawaay léegi comme Paris Géejawaay léegi comme Paris xoolal Géejawaay xoolal lii est-ce que yow léegi yaa ngi koy wax ne soo xoolee di xam ne léegi Guédiawaye comme di nuyu sama sëriñ bi sëñ Samba Ndour ca Touba sëñ Samba Ndour ak Omar Baas sën nga maa rabo ak Gassama sën nga sama sëriñ sama xarit sëñ Xaadim Kanji ca Espagne du nuyu waa Espagne yëpp ñoom alam ndaa sama doomu nday As Malick Bas Ballago dem ba euh, Italie nuyu fa sama gars yi euh, euh, Sirajo Diallo doomu nday Pape Diouf waaw Sirajo ak ay gars yi mu nekkal foofu yëpp ku lim nag da ngay juum maa ngi nuyu waa Espagne waa France waa Italie diaspora bi ndax ñëpp may bëggee sant yàlla rek boobu la ñoo ma dégg mën a tekk nag ah wax dafa jot te damaa sonn wax dafa jot wax ji dafa bëri samay mbokk sonn nan samay xarit sonn nan ñëpp ku nekk may woo ndax wax juree jin may wax waxal waaye nag sant yàlla ba ci kanam xuusal maa ngi nuyu sama doom nday jey seen sama doomu nday sama xarit du nuyu grand champion Balla Gaye ñoom Lac de képp kuy mba dëkk Guédiawaye tout maa ngi lay gërëm di la sant bàyyiwuma kenn di ñu ñaanal suñu bis bi ñu jëm bis bu mag bi yàlla may ñu si ndam lu sedd guy muy combat Lac de bi di defal ñi di ñaanal ñëpp jàmm nag képp kuy yeewoo Guédiawaye nekk autorité maa ngi lay gërëm di la sant monsieur le maire maire de la ville Aliou Sarr ak Néné Tall ministre de la jeunesse ak Mame Boye Diao ay Mame Boye Diao kenn du Mame Boye Diao kenn du moom man maa la wax lii Mame Boye Diao ku baax noonu. mais Lirou. waaw euh, dafa am question moom la liiru damaa gis euh, nga ñëw wàcc ci oto bu doy waar bu rafet sax liiru yaa borom yaa moom bi maa ko moom waaw sant yàlla rek ñun dara jombuñu ñun dara jombuñu sant yàlla rek ñun taalibe maam Cheikh Ibrahima Fall lan ay Baay Fall lan ñun dara ñu ñun waaw ñoo ngi sant nag bu baax a baax a baax a baax waaw di gëm suñu bopp nag teg ci liiru te duñ daw làqu dëgg la liiru tey nga nga gis ñu ñëw sa biir dëkk xam nga liñ fi waxtane moy lamb tay lamb bari na ciow si sa euh yak ki nga xamni moy wulli euh lool nak na war torop lan moy lan mo nek sen problème yeen ñaar. ya rien fait xaj na xaj na am ñu nek ci ginaam diko ko ruux xaj da am ñu nek ci ginaam diko ko ruux ndax boy bi wu mo won yi ma yabe ni yabewu wu mako boy bi suma jakarlo won du sigi xool man duma moromam su ma yebee tey la ma yeb man ku ma yeb tey ma yeb bi ma defee accident bi ku ma yeb tey nga ma yeb booy bu man du ma moroomam ñi nekk ci am nag xam naa leen li si kanam nag raw li bët buñ ma wax loo su ma waxee du baax non su ma waxee du baax léegi man su du baax man xam naa su ma bopp su ma waxee du baax ñu nekk ci ginnaaw xam naa la ndax démb yóbbu naa sama benn booy muy bëri ji sama doom maa ngi koy encouragé muy dund mu doon bëri démb am na lu ma wax ci stade ba Assane Ndiaye am na lu ma wax te maa ngi koy xaar nag Assane Ndiaye maa ngi koy xaar loolu ma wax ni maa ngi ci bàyyi xel démb métti la tàngaloo na ma stade. mais damaa dégg ni yow yaag sa combat sa combat wulli taxaw na. taxaw na ci ay wax. waaw ñu ne euh, Jamaï Jamaïcain production moo ko tëgg. taxawagul cent pour cent. yow jotoo avance. déedéet. dégg naa ni liiru dégg naa jot nga avance. man xam naa ne dina taxaw waaye may la jotaguma avance kay 100 pour cent wax nan ba pare ndax tey jii su fekkoon woon du taxaw wala du demee du demee nii booy bi du nekk directeur man mi nekk fi di wax non non dina taxaw dina taxaw ndax jamay kay am na lu ñu waxtaane kenn maa ngi koy déglu. lu tax àdduna bi yëpp ah bëgg bëreeg liiru jaan lan moo xew. waa sant yàlla rek xam nga liiru nee naa la ko yëpp tey ko yëpp bi mu defee accident man naa trois kaw. te poids lourd yi ma bëreel moo amul fitu bëreeg ñoom nee naa la man ku ma yëpp tey nga ma yëpp ba ma defee sot bi waaye nag sant yàlla maa ngi ñaanal sama gars yàlla na ne yaar xaar àjjana yàlla na xaar àjjana ku ci mel ne père Gora Seck père Aline Sey Cheikh Mbeng Cheikh Sey Mama Ba yàlla na ne yaar xaar àjjana ku ma yëpp tam ngay ma yëpp ku taxaw di wax naan liiru dafa dofit <laughs> sant yàlla am na ñoo xam ne tey ji seen kër su amoon ñaari dof yu mel ni man wala benn dofu mel ni man ah du ñëw Ndakaaru waay di yor puus puus. waaw mais defal naa defal naa moom dégg naa ko mu liru dafa am euh, depression manam dafa dof wa sant yalla xam nga lolu su koy wax dafa bëgg jaay combat bi rek dafa bëgg jaay combat bi motax muy wax man dama dof te yëpp déggoo wax da am ñu nek ci ginaam du ko soxlu naan ko waxal li wulli su doon man ak mom dong dong dong sant ta wax man dima wax yenn yi non yow ki kii kenn nekku ci ginaam ki mom mo la ñëmé rek mom mo la ñëmé démb ma ngi dem lamb di Assane jaay dima wax ay wax yo xamni c'est pas normal dima way tanak te ko bu ma taxaw bu ma merloo bu ma tàngloo damaa yàgg ci dëkk bi li ma xam dafa bari fi ma jaar dafa bari. mais yéen ñaar seen combat foog mu leer parce que xam nga dëkk bi yëpp combat bi liiru jaan wulli wuuri jaan wulli luuri jaan. déewal bi su ma arbitre soufflé sama diggante bi mi ngi mel ni penalty bu ma war a dugal barki Sëriñ Bamba dina mel ni penalty bu ma war a dugal. Assane Ndiaye Assane Ndiaye. waaw lan la la wax yow. non Assane Ndiaye dama ñëw mu ne ma ñun ñëpp ñoo ngi ci ginnaaw wulli su la wulli jàppee ah dina dóor ba nga bëgg a man du ma xool am na yoo xam ni bis bu ko wax jotee wala jëf jot ah su boobaa ñoom si la ñuy comprendre. mais est-ce que xalaatul ni wulli moo la mën. non du question boobu loolu lépp dafa am lu ko waral non non dafa am lu ko waral wax ji daa am lu ko waral. mën nañu wax lan moo ko waral. wax jooju jotagul du mi nga wax di ratatati maa ngi koy déglu xaar ko démb tàngaloo na ma istat mettaloo na ma waaye nag maa ngi koy xaar li ma xam dafa bari de bu ma yëngal. barki Cheikh Ahmadou Bamba li ma xam dafa bari ak li ma fekkee dafa bari buñ ma yëngal buñ ma merloo. mais mais liiru li nga wax li nga xam dafa bari te waxoonu ko amul sens. non non xam nga fi ne merloo na ma démb léegi dama koy xaar. loo koy xaaree. non li ma koy xaar xamoon naa ko après ngay comprendre man maa la wax léegi après ngay comprendre. wu voilà liiru ma laaj la euh, ñaata combat nga man am naa dix huit combat. ñaata victoire. Euh, dix ak cinq défaite. ça veut dire nee naa la ku ma yëpp tey nga liiru liiru yow eh, champion nga de. non déggoo li ma la nee naa la ku ma yëpp tey ma yëpp. mais damay sant yàlla bay dakk say man lu ma dal damay sant yàlla man xoola su nee ma damaa dof sax damay naan xam li ma xam xam li ma xam ndax xam tax su bi taxawee ci média yi naan liiru dafa dof dafa am problème bopp et puis saytaane la mooy tax ma yàlla am nekk ci ginnaawam te xoolal mun naa la wax benn affaire man monument laa fii Guédiawaye fii Guédiawaye monument laa fii ñëpp ma jox sama cër mbër yëpp ma jox sama cër ku ci nekk am na fu ma jaar ak yow Balla Gaye 2 su ma rakk la grand champion kañ na dafa am ñoo xam ne day bitaa gas seen Balla gay 2 neexu moo tax ñuy dem di conseil booy bi di ko wax loo te booy bi dafay àll saytaane la booy bi ñëw na Guédiawaye nee na dafa taxaw nee na Balla Gaye moom la àndal keneen ak c'est pas vrai gis nga li ma billaahi wallaahi wa taalaay nee naa li ma xam dafa bari nan ma bàyyi gaynde guy nelaw kenn du ko yee gaynde guy nelaw kenn du ko yee su ma yee du baax bu ma yee nan ma bàyyi ma nelaw. mais mais nag kaa ma xamal wulli moom jamono ji moom Sénégal dafa xew. waaw yàlla ko yàlla jàppale xewam boobu yàlla ko yàlla jàppale waaw. wulli waa amul problème si nangu naa ko kay su ma ko nangul su ma ko nangul day mel dama ma ko il faut ma du bis boo ko jàppee ba jàpp bàyyi bàyyi ko ak <laughs> ko ah moom li ma wax a tooñ na ma damaa dof. te nee na man seytaane laa maa jaxase mais yow yow sa digganteeg ay Balla Gaye sa digganteeg ay Lac de Guiers lan la sa diggante. jàmm ak salaam man maay monument géejawaay ñoom ñëpp sumay rakk la. Lac de Guiers suma rakk la Balla Gaye rakk la ñoom ñëpp sumay rakk man aw ma fi noonu Guy Geeg euh, Les de El Toro ñoom ñëpp sumay rakk Alioune Seye de sama doomu ndey alam ndaa ba ci Espagne doomu ndey Asmalik at euh, kii. léegi da ngay nag da ngay bàyyi ku mu neex door ku mu neex wax am na say nit yu baax loo xam ne su la jàppale maître Ndiack ba sama avocat bu mag bi maître Ndiack ba sama avocat ba ah Pape Niass ñooñu samay xarit lan am na droit wax ci ñoom mënut a ñàkk man su may wax te ñoruma wax dama jaru may wax ak nit ki soo son si yow soo son si yow soo am nga droit wax ci moom ah at yaa tuuti ci Espagne yaa tuuti ah bu dëkk Guédiawaye bëgg Balla Gaye 2 waaw mais moo wax na waxaale waaw touché. non li nga wax li nga wax moom touché ndax waroo wax ne ma li waroo wax ne ma da ngay Espagne ngay lim ay Italie. waa léegi yaraax euh, yéen Sénégal yéen may déglu maa ngi nii fii xam ne mooy Géejawaay dara daanaan bu mag bi yéen koy dégg boobu ba léegi muy ki nga xam ni mooy liiru yéen koy dégg muy champion bu mag ci diggante ba ki nga xam ni moom mooy euh, wulli léegi nag tey tey jii man yow da am combat bu mag ci diggante ki nga xam ne moom mooy Lac déggee ak booy Niang 2 Boy Niang dugg fi nga xam ni moom mooy géejawaay daan fi Sa Thiès daan waaw daan fi six personnes léegi nag tey lan mooy seen lan ngeen préparé làmb jooju combat boobu sunu combat la ñu képp ku dëkk géejawaay di yeewoo géejawaay combat bi sa combat la ndax Lat Kalooru Géejawaay lay défendre Boy Niang dafa dugg Géejawaay daan fi six personnes léegi nag dafa jot ñu arrêté ko Géejawaay ndax dafa jël seize am rek teg ko biir Géejawaay ne du génn te Lac de Guiers ma wax eh, dafa teg seize am biir Géejawaay te Lac de Guiers ma war a jël seize bi damu ko sànni ko delloo ko Pikine wala mu yóbbu ko feneen kenn werantewul mbër la champion la ndax dafa prouvé moo tax mu bëreeg Lac de Guiers su prouvé wu woon du bëreeg Lac de Guiers nangul dal na ko waaye nag dafa doy dafa dem si si doy na. mais yow sa sa sa diggante autorité ak géej géejawaay lan la parce que boobu lay dañoo tudd autorité yi. samay nit lan ñëpp ma mën man Aliou Sall monsieur le maire maire de la ville xoolal leen fi nag gi bi mu ñëwee géejawaay la génnee comme Paris la comme Paris xoolal dafa changé lamp yi tàkk ah, man bu ma dugal bu ma dugal de yow <laughs> man waxuma dara. ku ci mel ne Fouta sama doomu ndey la Andaw Ndiaye Béy di Ba maire Gounass Béy di Béy di Sey Marsa Ndiarème Assis Ndiaye ci kii autorité damay la bokk ah sama doomu ndey Dieye Sène ci la bokk Moussa Fall euh, Baara Gueye ah. kii ooy ah. ma mais kii liiru xaaral nag liiru yow yow sa bopp comme autorité def nañ fi lépp mais liiru lan nga def géejawaay yow. ah bari na laay la maay puut maay maay kii bi nu mu koy waxatee ko olof di wax nan ko tubaab di waxee maay porteur de lan porteur de voix maay monument Guédiawaye. Eh, maay monument Guédiawaye. déedéet Balla nekk fii ah. Lac de Guiers nekk fii mbër champion nekk fii nga nekk ci monument. eh tojoo fenn nag yow. yow ku soxor nga ko bon nga yow yow ku soxor nga yow tey méchant yow ñooñu maay seen mag yow ku soxor nga non yow ku soxor nga yow tey méchant. sa premier combat kan nga njëkk a bëreel. Vandam. noo daane. si la jaari bàyyi beure barki Cheikh Ahmadou Bamba billahi wala image yaa fi. sa deuxième combat ko am. sama deuxième combat Ibou Fall ma dan ko mi ngi fi no woruma de va sulum le ma gëna làmb ji sulum le ma gëna làmb ji waaw. barki Cheikh Ahmadou Bamba dama ko dan bu juutal ko mako gëna làmb ji mais Lirou am nga xaliss ma ngi sante yàlla am naa samay nit ñu baax ma ngi sante yàlla eh nit ñu baax duñu ay xaliss waa déglu ma déglu ma déggoo li ma la am na ah Thierno Lo laa ilaha illallah Zidane xam nga ko tan nga tam nekkoon ci nguur Abdoulaye Wade maa ngi koy gërëm di ko sant gis nga bi ma defee accident moo ma jël en charge fañ ma ku am ko ku baax ak noonu yàlla ko yàlla jàpp gis nga kuy fàtte démb bu baaxoo nekkul nekkul ministre de waaye ku baax la ku am colère la sama nit la sama bu naaru sama papa ndax fa ma jëlee ak fa ma yóbbu asuru ah, waroon ñu delluwaat ci wulli wulli gis nga ko champion policier la daan man booy boobu taxumaa jóg man booy du ma moroomam xaalis boo booleeg moom rek may bëreeg moom man damay liggéey mu nee la man su ma yabee tay la bi ma defee sot bi waay waay xoolal sa waay yow yow bul ma wax oh, warante woon champion la bëri fekk ay ndaana bëri na ak sa kees comprendre nga bëri naa yëkkani jor ak ay ndaanaan waaye dama lay xamal benn affaire yàlla na yàlla defal jàmm ba combat ba gis na ma xamal la benn affaire man damay sant yàlla bu baax ndax euh, ñëpp mënu ma lim seen tur ku ma limul rek maa ngi damaa dem seeraas di jënd ndékki comprendre nga ba comme dimanche ñëw saan ma ñëw benn waay fekk ma fa ne ma man dama laa bëgg te yàlla tax jëlal ma dix mille francs yàpp barke Sëriñ Bamba ndax bëgg ndax bëgg ma damaa lekk ba suma suq yi ma àndoon sama booy lekk ba suur waaw si am naa samay poulet samay sama poulain am na ay poulain am na ay poulain gis na sama combat gulli nan defee attention mun na yëngal Sénégal man maa la wax lii combat bu mun na yëngal Sénégal waaw maa moom non man xam naa li la wax mun na yëngal Sénégal gaynde guy nelaw nag bu ko kenn yee. Eh, eh, yéen nag yéen ñaar yéen ñaar nekkuleen fi mbër boo xam ni mën ngeen toj Sénégal nag. xam nga booy bi nee naa daa am ñu nekk ci ginnaawam du ko soxlu ndax booy bi su amee dem am fitu taxaw man di wax man naan damaa defoon sogok damaa dofak comprendre nga wéruma maa jaay sa géejawaay moo tax may la gaynde guy nelaw kenn du koy yee man monument laa biir géejawaay ñi fi nekk autorité yëpp samay xarit la jox sama cër aw ma ca xaar ma yàlla la ñoo koy suulu xam naan seen bopp te bu ma yëngal après la ñu comprendre après la ñu comprendre gis na ma xamal la benn affaire penalty bi ma teg war koo dugal su ko dugalee du baax su boobaa nee naa la lu neex lu ne dina mos a naqari te bis boo jëflanteeg moom dootul wax neex na ba faw ñan ñoo jàppale loolu laa la foofu laa la bëggoon laaj ba pare ñan ñooy jàppale liiru man ñi may jàppale bari na su ma fi nekkee di lim damay juum te mënumaa lim ñëpp su ma tuddee Guédiawaye samay njëkk ci monsieur le maire maire de la ville maire u Guédiawaye xoolal Guédiawaye ni mel ci kaw ci kanam bi mu ñëwee Guédiawaye la Guédiawaye changé waaye waaye nan ko jàppale yow xam nga ci dara waaye ba di nga jàppale imaam yi di jàppale élèves yi di jàppale waaye waaye sunu amoon ñaar ñu mel ne Aliou Sall laa ilaha illallah ngalaama Aliou Macky Sall dafa war a dolli Aliou Sall ndax géej way ni mu mel gàcce ngalaama du question dóor li am laay wax. mais non non yow fi su dama xam ne yow. non yow kon yow am nga mbooloo parce que ni ma dégg ni waa Italie Allemagne Angleterre rek ngay tudd. France France ñoom sama xa ñoom Sall ngaari ñoom Pape Faye ñoom ñëpp. dinaa fa dem nuyu ji leen vacances par combat bi il faut ma voyage ndax si yooyu lan nekk nii ndax combat bi moo laaj loolu ñi ci taxaw nii. eh wul eh, eh, wulli moo ëpp ñu ko yu. laat suma benn booy jour ay sant doomu géejewal tam nekk Qatar professionnel la tam nekk Qatar Qatar ci naar yi la nekk di football non déglu ma dama leen dama leen ci la nekk di football suma booy la bi mu déggee affaire affaire du bi mu déggee wul ne liiru dafa dof nee na affaire du ah, ko touché bas ma laa Madrid rek Espagne Bas Ballaago kooku suma waay la ah, kii nu mu tudd sama ah, Aliou fi mu nekk ah, waaye Sirajo Diallo te Pape Diouf di ko Sirajo sama waay la ak ñoom Pape Diouf ñoom njabaram ñoom ñëpp maa leen nuyu di leen sant ndax combat bi dañ ci war a jàppale gars ñëpp ci war a jóg Aziz Ndiaye c'est mon ami daf may jàppale Aziz Ndiaye. daa bàyyi laa am. waaw Aziz waaw sëriñam moo ko léegi bàyyi na tëgg lam baay mooy tëgg léegi bàyyi mooy tëgg képp kuy mbër sa dëkk Guédiawaye euh, Baara Gueye Kew Awel Anaw Ndiaye Fouta Moussa Fall euh, sama xarit bi euh, waaye Modou Mbacke baax yaay Couture ñoom ñëpp maa leen gërëm sama doomu ndey nag jéy seen ku ne xam naa moom samedi ak dimanche la ci kaw ci kanam ah, kii nu tudd xam nga dafa am ay gars yoo xam ne fan yëpp ndeysaan ñoo ngi may woo ndax affaire dafa leen a touché ku ma ci li at yaa tuuti tam nekk Espagne ku ma ci limu nga jéggal ma Asmalik doomu day alam daan maam moor bas ballaago ñoom ñëpp maa leen gërëm waa Espagne mënu maa tudd ñëpp ak Aram Diop rakku Fallou Diop Fallou suma xarit ñoom ñëpp maa ngi leen tudd gërëm di leen sant mënu ma tudd loolu ñëpp ku ma tuddul nag maa ju at sama booy ba ma jël loolu yàpp nag seeraas di gërëm di leen sant di ko teg ci Pape Mbaye Dieng sama papa ji nekk foofu at ñoom Pape Dieng seeraas ak ñoom Fouta ñëpp gërëm naa ne waa seeraas bàyyiwuma kenn ko am naa ko Sall te combat bi nee naa leen kenn kuy nelaw bu ko kenn yee. damaa bëgg nga jàkkaarloo caméra bi. nga wax lu euh, wulli dof gi mu la wax nga wax ko nan nga koy fajee. non dof gi ma koy fajee su boobaa ma jàpp ko duma ko waaye ni dof day doore waaw ab dof day doore su bis ba mu xam ni man damaa dof du fi ni sama dof du léegi la ko mën a xam xam kenn léegi la xam sama dof arbitre génn sama diggante ak moom si lay xamee ni man mii damaa dof. wulli loxoy daa daa baax. na man doon naa ñett ñu daanoo. te ña ma dóor ñu ña ma dóor ñu daan ay cent nangami kilo lan nee naa la ku ma yeb tey nga ma yeb Badara Ndiaye Suisse maa ngi koy gërëm di ko sant borom Louga sama grand sama xar ak rakam As Ndiaye maa ngi leen gërëm di leen sant waaw grand Badara Ndiaye ah gis nga ma xamal la benn affaire soo fi nekkee di lim ñëpp mënu ma tudd seen tur ku ma tudd sa tur maa ngi jégalu baal ma àq ñi may jàppale bari nanu bari nanu maa ngi jégalu sëñ Xaadim Kanji bul ma ci ñaan sama sëriñ sama xarit sëñ Samba Ndour ca Touba ah am na loo ma wax bul ma fàtte sama sëriñ bi nekk fii <laughs> booy bi am na problème sérieux combat bi du yomb de. mais yow li wax gars yi yow gars yi est-ce que suñu la déggee nii danañ la jàppale laaj ma dox laaj ma dox laaj ma dox euh, xaalis bi yow am nga oto bu rafet xaalis bu rafet waaw léegi nag gars yi bu ñu la déggee ni ngay waxee ni ba dinañ la jàppale. waaw loolu dara waaw waaw sant yàlla rek lam moo demee noonu. Euh, li euh, Lirou ñu ngi lay sant di la gërëm Lirou kontaan nañ ci yow Hann TV mi ngi lay gërëm dina sant ci yombal bi ñu yombal li nga xam ni moom mooy def émission xam naa ne yombul te jafe na aussi tamit trop ci yow euh, ñu jël la parce que fi ñu la fekk neexul woon ñu jël récupérer la indi la nga may ñu loolu yëpp. doguma la foofu doguma la foofu da ngeen def déplacement jóge ba yaraax ñëw fi bu nekk waa Hann TV fan yi lii ñu ko bëgg bari na. te dama néwon duma wax sax ndax suma waxé da fay nuru ndax suma waxé xol lay waxé jamono yi ndax boy bi daf ma tuuse ak ñeen ñi nek ci ginnaawam diko soxlu muy wax ndax suré dee boy bi rek du taxaw ak man face à face néma da nga dof xam nga li ma la ñu nek ci ginnaawam diko soxlu lool moy affaire bi bu lool moma yëngal ta amna yo néna la waxaguma gaynde guy nelaw kenn du koy yé bu ma yëngal nak bu ma wax loo ñu nek ci ginnaaw bu ma yëngal bu ma wax loo su ma dëkk bi du lak waxaguma suma waxé dama yëngal Sénégal waxaguma su ma waxee dama yëngu si maa ngi gërëm ñëpp di gërëm sama rakk ji yàlla ko yàlla defal jàmm muy Balla gay 2 grand champion ak ñoom Lac de ñoom saa ñoom saa kees euh, ñoom euh, guy gi euh, nu mu tudd les de Thioub ah, ñoom ñëpp maa ngi leen di gërëm di leen sant di gërëm suma doomu nday Dieye seen maa ngi koy gërëm di ko sant di gërëm Aziz Ndiaye borom Sador. maa ngi koy gërëm di ko sant at Baye njaay rakkam ñoom ñëpp maa leen gërëm di leen sant képp kuy autorité nekk Guédiawaye maa ngi lay gërëm di leen sant yàlla nañu yàlla defal jàmm te musal ñu cet at nag bul ma yëngal gaynde guy nelaw kenn du ko ñu nekk ci ginnaaw booy xam naa euh, euh, kii euh, pam mama duwaañi bu mag suma xarit la Guédiawaye la dëkk dafa gëm fi mu dëkk maa ngi koy gërëm di ko sant kii Daado sekk maa ngi koy gërëm at Jaw ñooñu ñëpp maa ngi leen gërëm képp kuy autorité ndax ñoom dañoo gëm Guédiawaye muy jaw looloo tax ma sopp ko ak Daawda Seck ñoo gëm géej waaw nee naa nag gaynde guy nelaw bu ko kenn yee gars yi nekk sama ginnaaw ñu nekk si ginnaaw wuli du ko soxla muy wax bu buñ ma yëngal li ma xam daa bari de te damaa lem sama genn toog ci nag. waaw léegi nag émission bi mi ngi waaj a jeex sa sa sa sa kàddu gu mujj. yàlla neen yàlla defal jàmm yàlla neen yàlla defal jàmm Hann TV ci kaw ci kanam di gërëm suma doomu ndey Dieye seen ci kaw ci kanam ndax fi mu ne yi mooy loolu sonn na trop képp ku gi nekk géej waay sama rakk ji. yàlla ko yàlla defal jàmm muy Balla Gaye su coow li baree rek Balla Gaye la man xam naa lépp su coow li bëree rek Balla buñ ma yëngal man jàmm laay dox jàmm laay wax du ma yee fitna buñ ma yëngal du ma yee fitna buñ ma yëngal su jàmm ji bëree coow li bëri Balla ci kaw ci kanam Balla Gaye 2 ak Lac de yàlla ko yàlla may ndam lu seddu guy maa ngi gërëm ñëpp di sant ñëpp ci kaw ci kanam jaay fa Hann TV. jërë jëf. salaam jëf yéen ñëpp ñi doon xam ne yéen ñu doon seetaan. tey waxoon naa leen champion bu mag bii lañ dalaloon muy ki nga xam ne moom mooy liiru mu nekk champion bu neex champion boo xam ne dégg ngeen waxam dégg ngeen diggante ma ki nga xam ni moom mooy euh, euh, wulli tey jii moom lañ dalaloon xam naa mbokk yi am ngeen ki nga xam ne mooy orom Omar borom Farab tey jii liiru def na Farab kon gaañi ba beneen yoon ak beneen émission ak Omar bi nga xam ni mooy borom Farab.